variété musicale mën nañ ko xaar ci le 10 wala parce que si dañu gis ambiance la gën a ëpp lu muy def est que mën nañu xaar si di dugg ci yeneen registre le 10 incha allah. ah loolu moom Sénégal yëpp defe naa ni gis nañ ko ci man ndax di Diop bu wooyee Ndiaga Mbaye wax dëgg yàlla gisuma gone gu ko fi way gisoo gone gu ko fi way gone gu ko fi way ñi fi toog ni ku fi gis xale buy way ni Ndiaga Mbaye Ndiaga Mbaye lu mu wayoon laay laay la laa biram njaayi xujatan laay laay laaye coow li ci pindu teen bi gaañi amul baag la am nga baag teen baawa gaañi soxla yaa jarawoo kon mu ñaaw yu la laayi laay laay yaa ma woy loo foog ma jàkkaarloog yow woy waaw muhammadu rasuulillaahi eh, muhammadu rasuul lañ la tuddee laa biram njaayi xujatan leer na ba noppi ndax di juub ni la ma saaf du mu leer te leer ba noppee xayrul ambiyaay lañ la tuddee waaw Muhammadu Rasulillah dégg naa ni DJ Prince la ñu woowee sa baay moo am doomam tuddee ko Sidna moo mat borom barrière or ba ak bëri woon yërmande su ma amee mbaat bu neex di way te way man Sidna Muhammad sama way wa dee na kama way niil na ndaxte baat bu neex mënu du loo bi laal xaadim rasulullah ngi woy sidna muhammad naan ko lam yaddu nii bil mustafa muhammadin silal waji xëra fil baraya samadin laa ilaaha illallah da baax sa diine may na ma woy loo waay baay ma sax ma yëngal <laughs> Mohamed Mohamed bu ma yëngal ñaata laa la jox compteur konteel rek mu leer. konteel euh, euh, mu leer. ci bëtu eh, askan wi li ëpp na le 10 bi maa koy tàmbali fii na leer benn. benn waaw bëgguma benn lifin eh, eh, <laughs> <laughs> def na cinquante mille publicité commencé guñu. macha allah macha waaye nag. ki ma way jar na ko. Seydina Muhammad mi nga xam ni. boo wayaatee lépp luy naaw. boo wayaatee. Ah. lépp luy naaw am na benn bis na bi di dox dégg lu koy woo. dafa amoon benn bis Seydina Muhammad di dox. ma ngay dox dégg lu koy woo. ndeke boobu benn kéwal lañ jàpp yeew ko kéwal gi naan Seydina Muhammad di jëfan nga ne xalaal ma micro laa ilaaha illallah yokkal ko effet Seydina Muhammad wàññeeku di xool kéwal ga kéwal ga naan Seydina Muhammad sa turandoo man de dama génnoon di ut lu ma nàmpalee sama njaboot benn rëbbkat jàpp ma yeew ma fii looloo tax ma di la woo xanaa xamuloo ni lépp luy naaw mbaa ngay dox mbaa ngay raab mbaa ngay nuy mbaa ngay eh eh eh ci dara ji Seydina Muhammad lañ la tuddee moo tax Mustafa maa ngay woy naan hmm. Hmm. ñu bind yaa gën sa turandoo kooku la Cheikh Mohamed Abdallah Thiam doyloo Alaaji Maalik tagg na Sidna Muhammad lépp luy naaw mbaa ngay dox mbaa ngay raam ci sa turandoo lañ la bindee sangu sang yaa ngoog góor góor ñaay ey laay laay la la Mohamed woyal bi yaa ko moom woyal Mohamed woyal kon fii di laa doyloo oh. le disque ku ñëw grand Serigne Saliou Mbacké laa doyloo ki may bëgg way mooy sëriñ saali borom njurul njàpp ndal xabaar borom daarak la nelaw na oh. keroog ba mu génnee àdduna picc yi dañu jooy asamaan si dañu jooy xale yi ndaw jooy Sénégal la ndam lool indalaani jalalaw indalaani jalalaw indalaali hindala mm, li jalala yaakaaru Umaroy pako jëm fan caam kooku yaakaaru Cheikh Omar sama baaji bëggul ko dul Sëriñ Saaliw borom njurul borom jàpp ndaxaween daarak nagan daarak nagan daarak nagan borom ñëwaan ga taroon xay ga hindala mm, li jalala ذي الدلال جلاله Ami ah, Gallas Lo bëggul ku dul Serigne Fallou. Ami Gallas Lo bëggul ku dul Serigne Fallou. Ami ah, Gallas bëggul ku bari woon yërmande dafa daan jékki-jékki Ibrahima di jooy ñu naan ko Serigne Saliou Mbacke lan de jooy mu ne mala yi ñuy dóor te defuñu dara mooy metti ci sama yaram wi fan la ñuy jëlee te mel ni moom kooku la Serigne Bamba xool naan ko kooku la. na Sëriñ Bamba xool naan ko li xaadati wujjooy wal ma saaliw bi tey ni wal jës way ni Cheikh saaliw naan ko bët la weex ak la cay kenn du ma sa dem bàyyi morom ba yow yaay man maa yow kenn du dem bàyyi morom ba looloo tax Sëriñ Moussa Fataaw ba da fekk fii ci mbuuru géen naan ko wax ma ñoo bokk ndey ak baay ma may la kër gi Sëriñ Saaliw ne ko ni ki tey ñoo bokk ndey ak baay Ahmadu borom jaam ñi nee na kenn rek laa jur muy ñeneen ñëpp di ko saraxu naan ko def ma maag ñi naan ko def ma sama rek ñi naan ko def ma sama maag kenn du borom njërul borom jàpp ndal xabaan kookoo yar sama baay Omar Diop foofu ca daara jaar sama baay ba muy dem mu woo ko ba mu ñëw may ko kër fee ca jannato boo ma woyloo sëriñ Saliou ma woy ko sëriñ Saliou Mbacké ci yërmande ci xol ak tabe ci yaatu xam nga ni boo xoolee sëriñ Béthio xam ni Saliou du néer sëriñ Béthio li mu defar kenn kenn xamu ko indalaani jamal la cantaku niye fedaleen ma way dama bëgga way sëriñ Béthio keroog ba mu lakko ci duniya cantaku ni jooy Touba Cité Douane Touba Pikine Touba Guédiawaye Touba Louga Touba ci gesso Touba Ndar géej ñu ne naan kenn ma lawul lay ñëpp a ngi jooyat jooyat jooy naan de kay ji moo la ko waay naan leen bàyyu mi daal di cooy bàyyu Sëriñ Saliou eh. bàyyu Boto eh. bàyyu Mam Jaara bàyyu Soxna Faati wooy la jooy yàlla na ñëpp am jàmm oh. kii mooy ndaanaan kii li nga dencal Sénégalais yi pour le 10 moo non non bu doon 10 un rek laa way nii Mohamed Sénégal dinañ gis beneen Sidy Diop ci 2020 bi incha allah boo fees loo wee yàlla baax na merci amin du bett amin boo demee doom de Paris def ko dóom it du ma bett amin yaa rabbi na amin boo demee